bisimilah. waaye ziar naa la. sa yaram moo tàng xanaa. waaye yaram bee tàng barke alxuraan di nuyu bool bool yi. ndeysaan di nuyu Grand Yoff gi ma jógee. di nuyu képp kuy bëggee carrière. di leen ziar bu baax yéen tamit. di nuyu champion bi Ousa. di nuyu suñu père la nuyu bu baax. dëgg la di bëggee képp ku ne si lamb ji tamit. di wax mbër yi dañ ma war a jël ma bëre. waa keneen foo nekk fan nga nekk. man maa fi barke Demba Ndiaye laa bëre fii. Ah. ba léegi mënu ma am combat. dëgg la wax dëgg est-ce que ragaluñ ko après macha allah day entraîné am na ful am na fay def est-ce que ragaluñ ko Ousseynou wax dëgg yàlla ah day xeex rek bëri de peut-être ñu ragal ko ah maa gars yi ñu mën te nag doogu ma la carrière c'est très important ah. mooy defar tali mooy defar mbir yi mooy dëgg la de wax dëgg yàlla victoire yëpp dañ ko war a faale wallaay wallaay perte nañ ma kay macha allah gars yi daal vraiment war nañ ko jël ba pare promoteur tëgal combat mais gars yi ñu ngi lay woo n'est-ce pas promoteur yi waaye ñu suivre combat bi ci biir promoteur yi ñu lay woo promoteur yi am na ñuy woote mais des fois ci mbër yi lay doon mm-hmm. mais man jàmbaar laa bëgg ñu teg ma si laa ñu suivre combat bi ci biir si laa si laa ñu suivre combat bi ci biir ñu ngi ñëw si yow si laa ñu suivre combat bi ci biir combat de la soirée mbokk yi diggante Oli Gane la ak Bébé Garga mi ngi bàyyeekoo Dalifort Garga. Oli Gënsa laaw mi ngi mi ngi jàkk mooy jàkkaaru Ouss Garga maa ngi si Oli Gënsa lëz Oli Gënsa mbokk mi ngi jógee Dalifort moo njool noonu ñu wan waaye day jàkkaaroo xale bi mooy Ouss Garga. Ouss Garga bàyyi ko parcelle. moo nekk si sos di goxu nekk dóor dóoraat. nekk dóor dóoraat champion la ñaari xale yi nekk jël pied gauche. Ouss Garga ku bëgg xeex la nag. macha allah ñoo ngi Armé ah, Mbassine doon na gën a seen diggante mbokk yi ndeysaan huitième combat de la soirée. ñaari pied gauche. ñu ngi liwaatoo. ñu ngi liwaatoo Ouz Garga. combat bi ñu doon gaaw nag. Ouz Garga ko topp. Ouz daa a dem Ouz Garga ku bëgg xeex la nag. doon na ko. Ouz Garga jël na ko. gis nga teg na ko añ na ko añ na ko mot na ko mot na ko. attention. ñoom yi de. non ay bërekat lañu boole ay bërekat lañu ay xeexkat lañu. dëgg la waa jàmbaar te lu ñuy xamuñu ko sax. non macha allah. premier combat ba dernier combat lépp neex. non léegi ren grand lit la ñu boole tey. macha allah macha allah tey ci bi. jàpp nañu gàmbali ba pare féete ko suuf. Euh, jàpp na ko Wuz Garga jàpp na. Aliou tudd sikil bàyyi fi nga jàpp. Wuz Garga. mbokk yi moo ngemboo ngembulu balaa li noonu si si Senghor yi la jàpp. Aliou Guèye Segui ngemboo ngembulu rouge li. ñoom ñaar jàppante nañu. plaqué da ko ko na ko lay lolu la takk na ko dan ko dan ko jëli wu rëy na ko sukur bi ko maa ngi oh. ko takk sukur bi ko eh, ne woon naa ko lamb la keroog jël no kii la xamoo ki ngay bëre lamb la ndam la dugumé benn ndam ko jox war na fulay war na fay def lamb la man lu mu toll nii doole bi na jëm yaa wax sànq boo xoolee lu mu bëree nga xam ni la daanaan la champion la champion la. mais ñoo ngi koy félicité encouragé aussi lamb noonu la. ku bañ a bu lu bëri. dafa juum rek xam nga bi. parce que dafa mm-hmm. euh, moo gën a diriger combat mm-hmm. dafa xaw a juum ci biir bi. Mm-hmm. ñu xool fay bi fayu lamb ji gis nga ñoom ñaar fii jàppante nañu mu dàq mu dàq ko paraga bi ko mu jaxan. da ko may takku bi ko. waaw fi mu ko sori. daa sori. kon ko xaju suñu digg. gisoo da ko doon dàq placage. mu bañ mu rëcc. mu bàyyi foofu dem takk ndig li. action continuer takk ndig li. bi ko mu jaxan. daal di bi mu jaxan. daal ko jëlee bu rëy koy féliciter di encourager Ouz Garga. ñu koy di féliciter ki nga xamante ni. te ah, lamb bañ a daanu bu ndam suñu borom rek moo koy joxe. Thank you.